comme ñu ko doon defee chaque année yàlla dafa dogal ne euh, ñu nekk doomi dëkk bi nekk conseil municipal nekk député à l'Assemblée nationale euh, lii nag chaque année dañ koy def te ñëpp gis nañ ne dëkk bi temps yi ndox mi daf leen a sonal kon boog ñoo ngi masawu ñëpp waaye dañoo am habitude bu yàlla dogalee chaque année fu ndox mi ñëwee Touba dañuy bàyyi suñu lépp ñëw euh, taxaw ci wetu askan wi loolu nag nekkul année bi lañ ko mës a def chaque année dañ koy def ren tamit ndox mi bëri xéwal gi bëri sëñ Mountakha Bachir woote porte parole mu woote ñëpp ñëw pour jàppale dëkk bi comme dama ko doon def chaque année ma ñëw seet association yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ren nag dañoo changer stratégie dañoo jënd ay machine jox ko association yi jox leen carburant bu ñu leen joxee carburant jox leen machine yi képp koo xam ne bëgg nga ñu manqal la da ngay woote ñoom ñu déplacé wu ñëw manqal la bu ñu paree garder machine yi parce que machine yi dañuy xool ne chaque année li ñuy jënd ci machine dafa bari mais day yàqu kon entretien bi day metti léegi nag bu ñu ko tegee fii képp koo xam ne gis nañ ne vraiment euh, soxla nga ñu din la sa ndox am na numéro boo xam ne bokk fi wootee association yi foo mën a ma nekk danañ mën a ñëw euh, jàppale la ba wàññi sa ndox mi loolu moo tax ren ji ñu jël initiative boobu def ko boole nañ tamit ay hydrocureur yoo xam ne parce que am na zone yoo xam ne euh, machine yi ci dara danañ mobiliser lu mu dee dee trois hydrocureur ba quatre hydrocureur yoo xam ne danañ danañ leen taxaw ndaxte ñun dara intéressé wu dëkk bi comme que màggal suñu màggal la dañoo bëgg ñëpp màggal ci jàmm génn ci ndox mi Euh, jafe-jafe bañ fi am euh, di sant tamit association yi nga xam ne bu yàgg ñoo ci ak tamit ñi nga xam ne personne de bonne volonté yi nga xam ne ñëw nañ jàpp ci dëkk bi gis nañ euh, la commune de Touba ñëpp xam nañ ne dooleem bëriwul waaye lu mu mën moo ngi koy def ci ndox mi ñoo gis tamit ONAS parce que nag ñii fekk naa association yoo xam ne ñoo ngi nekkoon ci liggéey bi te ONAS moo leen accompagner kon boog di sant le président Macky bu baax a baax ndaxte fépp xam ne assainissement fa dem na ndox moo fa doon gis nañ ndox amatu fa waaye nag ñëpp xam nañ ne doyul parce que assainissement bu dajoon ndox bi du fi am waaye ay la yéwén man defoon naa visite terrain waaye aw naa tey fu bari waaye fi ma awoon yëpp assainissement àgg fa ndox taxawu fa kon boog ñoo ngi ñaan ñu continuer assainissement bi ndax loolu rek moo mën a génne dëkk bi ci jafe-jafe yi. danaa xool ñoom ñëpp nu ma leen organiser ma yëkkati machine jox leen jox leen carburant duñ mënuñoo dajal fépp nag mais nag danañ xool de telle sorte organiser ñoom jox leen jumtukaay yoo xam dana mën a jàppale askan wi ci seen jafe ñu mën cee génn. kon boog man su ma ñëwee mu bari mu néew lu ma am ci sëñ Touba laa koy def surtout bisam bi muy màggalu Touba mm-hmm. lépp lu ma am dinaa miraas sama bopp dinaa ko def su ma gisee waa Touba nekk jafe-jafe man du bu ma tëddee du ma nelaw te na tamit bul fàtte ne lu ne dama ko fee am kon bokk cër boobu dina tax ak doomu dëkk bi ma bàyyi lépp lu ma mën a lu ma mën a def dama koy konne di ko def duma ko bàyyi ndaxte dëkk bi laa koy defal sëñ Touba laa koy defal te moom may fayal boppam maa ngi ci gis sama bopp. dañ ciy kontaan bu baax a baax di ko saluer et nekkul la première fois mu def ko parce que ko xam Matar Diop xam ko ci inondation ndax def na ko ay multi reprise kon nekkul ne lii mooy première année kon dañu koy sant tey wax dëgg yàlla yëmut sax ci def joxe ay moto pompe mais daf ñu ouvrir ay hydrocarbures ak lépp loo xamante seen ni danañu mën a jàppale pour ñu dindi ndox mi mu ngi ciy dox ba tey jii sax gis nga mu jënd ay benn suuf ak yëpp di ko def lépp pour rien rek pour le bien-être de des habitants de Touba kon dañ ko ci sant bu baax di ko ci gërëm. li ngeen taxawee nag. seen bopp ngeen koy defal ndax euh, liggéeyee sëriñ Tuubaa la euh, te kenn ku si nekk rawatina ab wàlliyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ñaan li yonente yi daan ñaan kenn ku si nekk su yi ko yàlla yónnee dafa am ñu muy aaji woo ñoo xamante ni li mu doon ñaan suñu borom pour taxawal ko ñooñ ñooy ànd ak moom ngir taxawal loola fi ngeen bëgg àgg yàlla ngeen fa àgg ni ngeen ko bëggee defee yàlla ngeen ko ko defee sëñ Muxtaar moom dañ koy bàyyee ak yàlla te li muy def nag euh, boppam la koy defal ba maama yéen faxun naas fayam ko su ardi képp ku nekk di jëriñ nit ñi da nga yàgg ci kaw suuf kon Matar li ngay def ñun nga koy defal taxawaay yi nga taxaw ñun nga ko taxawal te nii rek la parce que kenn ku nekk il faut mu jox génne euh, effort ngir yëkkati mbiru ab dëkkam yow nag li nga war a lépp si dëkk bi yaa koy def ñoo ngi lay si la gërëm